diggante Serigne Touba ak maam Cheikh Ibrahima xam nga lii jumaa la dañ fiy jullee mm-hmm. sebre du julli ju wóor ca moo leen tim ñoom ñëpp sooreel baa nga dële ku julliwut wóoroo ba pare tim luy julli am na lu laxasu ci biir mm-hmm. sebre ibrahima la tudd Fall la sant boo duggee ci alxuraan da ngay gis sooratu ibrahima ca boo songi ibrahima da ngay dégg mën la alif ram raab kitaabu ansalnaahu ilayka li tuxrija naasi mina zulumaati ila nuuri ngir nga génnee nit ci lëndëm gi nekk jëmale leen ci leer sëñ Tuuba maam Sera Fall moo ñu woon sëñ Tuuba a yaa xam sëriñ bi yaa xereñ daawoo weran teekub sëriñ bajo bi yaay bari ngay ngërëm ba am dërëm foog tey dërëm jëndee ngërëm loo mas a am tàbbal këram ay junne daal nga daan joxe joxe nga addiyey gëleem ñuy safi nguur di safi koom soldaar sa yaa joxe sa doom addilu fal fàddilu fal am nag texe sa ndaw da daan dem ba gabon di yóbbu ay saako yorog di war ca gaale yori bam doo denc lëf ba muy maxe Serigne Touba maam Seera Fall lu mas am jox na ko Serigne Touba Fall la sant suratul lan Fall am na ci alxuraan yasalunaka andi lan faali xuli lan faal lillaahi wa rasulu ittaqullaha waslihu saata baynakum waatiullaha wa rasuluhu in kuntum muminina nee na na ngeen ragal yàlla ci ngeen rafetal seen diggante yi ngeen topp yàlla akub yonentam ndem ay jullit ngeen